dëkkandoo dajaloo mu ne am na ci mbégte lool mu ne am na ci yaakaar itam mu ne moom soxna Aminata Touré mii mu ne am na ci sëriñ bi cër mu ne ndax maamam mu ne moom sëriñ bi ba muy gone toll ci ndaw ci am njàng mu ne yàlla dafa dogaloon moom maamu soxna Amina Touré bi muy nekk jege kër sëñ Basiru lool. mu ne mu xam ko foofu. mu ne yàlla def moom sëriñ bi mu bëgg ko sopp ko lool. soppoo ko lool. mu ne xemmeem ko lool. mu ne waxtu ba mu fa jaaree rek. mu ne balaa sëriñ bi di jàll day jàll ci maam yi soxna Amina Touré ñuy nuyu ko. moom xam xam yitte jooju ci moom mu ne loolu tax na mu dox diggante moom sëriñ bi ak soxna Amine Touré mi toog mu ne kon cër boobu nga xam ne maamam amoon na ko ci sëriñ bi mu ne moom rek la lay jàppee te loolu rek la lay xoole mu ne kon ñoo ngi gën a sant bu baax a baax mu ne bi sa taxawaay rafetee nii mu rafete mu ne mi ngi ci am mbégte mu baax a baax mu ne président yi itam mu ne fa mu ci nekkoon démb rek foofu la ci nekk tey jii mu ne dafa yokk waaye du wàññi mu ne noonu rek la demee mu ne daf ko dénkaane woon rek mu ne fa mu ko dénkaane woon mu ne tey jii la ko fa la ko gën a dénkaane tey foofu rek la ci nekk mu ne foofu rek la ci yem itam mu ne doy na sëkk mu ne jërëjëf mu ne sëriñ bi dafa wax ne mi ngi sant mbooloo mi ànd ak soxna mi tur yëpp mu ne di leen gërëm bu baax a baax mu ne di am yaakaar ju rëy ci taxawaay bi mu ne na ngeen gën a góorgóor bu baax mu ne ci jàmm jooju rek mu ne fu ngeen nekk yi fu ngeen toll mu ne na ngeen woote jàmm rek mu ne ndax alhamdulilahi rabil alamin képp ko woote jàmm ci senegal mu ne yàlla suñu borom mën na mën na la caa jox ndam mu ne moom sëriñ bi moo waxal boppam ne mu ne senegal ba mu amee sëriñ Touba mu ne boobee la amoon jàmm mu ne loolu rek la. ñëpp tàll ñëpp tàll.